الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار والصلاة والسلام على سيد الصابرين سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب سيدنا ومولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه ومقدميه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين وخاصة سيدنا ومولانا الشيخ أحمد ابن سيدنا وشيخنا ومولانا محمد الحافظ التجاني المصري رضي الله عنهما وعن آه، أختها أخته آه، آه، السيدة فاطمة رضي الله عنها وعن جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بوكي جلتي بوكي صبيتي الله سبحانه وتعالى آه، أمنا بكتي مريد آه، غاية تمت أمنا تمت آه، يجيك بفار xew-xew bi nga xamanteni mo dal ci humanité en général daw ci dal ci l'islam waye dal ci tariqa ak tijaniya ci weer wu tedd wi nga xamanteni moy mooy weeru Cheikh na Ahmed Tijani ndax cërëm bi nga xamanteni mom la bokul ak ben waliyu ci jamono ci weer wi la ko yàlla jox mooy weeru safar bi mo melni nak nag fa tabaarakallaahu euh, montagne bu rëy moo daanu garabu guy gu mag moo daanu waaw géej gu rëy moo fer tey ci biir lislaam ci biir humanité ci biir tariqa tijaniya maa ngi def junj ci wëlu yàlla bu mag boobu di dund tarixa bi xam tarixa bi di ko bàyyi xel di gëstu tarixa bi te doo ko xam amul waaw te moom sax bayreem mooy dafa am beneen Mouhamadul Hafiz bu am kooku mooy al Cheikh Mouhamadul Hafiz Tijani ak Shanqiti mooy Mauritanien ba kooku moo bokkoon ak jamono Cheikh na Ahmad Tijani waaye bokk tur léeg-léeg dina la jox bayre boo xamante ni. Euh, ka nga ka amul loolu du am tur woowu ak bayre boobu Cheikh Ahmadul Hafiz nag mook Cheikh Ahmadul Hafiz mook bee ca Égypte ñoo bokk benn tur moo tax toujours dañuy préciser su ne Cheikh Ahmadul Hafiz xam nañ njabootu Cheikh Tidiane la waaye soo déggee ak Shinqiti mooy mooy mauritanien ba waaye soo déggee Mouhamadul Hafiz al Misri xamal ni ah mooy égyptien ba waaw ndeysaan hmm. kilifa gu mag la waaw ah, waliyu bu mag la arif billah bu mag la ku yàlla dimbali woon la waaw ah, ku yàlla dimbali woon la eh, nit ku modeste la woon ku semple la woon addunaam yëpp l'islam la ak tarixa bi bërki dem rek moo ngi woon xamante ni tey ci tarixa bi ñoom ñëpp la yor moo leen ko jox ndax bàyyam wax naa ko kenn du ko sikki sàkka ñun soo gisee ginnaaw cër bi mu am ak maxaam bi mu am ak daraja bi mu am Cheikh Abdoul nga xamante ni bokk na sax ci ñi wax rare personnes yi ñu wax ne vous ku gis-gis nga Cheikh Tidiane papaam ki may wax nii te am bis sax ci page bi ndax cofeel gu ma am ci nee nañu moom ku ko gis-gis nga Cheikhu Tidiane ndax dëgg la taalibeem la sopp na ko waaye dafa dafa dem ba niroog moom sax ci bind Cheikh Abdoul Habas mooy papay Ahmed Mouhamadul Habas ñi daan seetaan chaîne arabe yi am na chaîne bu mag bu am solo bu ñuy wax Azhar TV mooy chaîne université bu Azhar ñi daan suivre ñëpp daan nañ ko gis chaque jour muy firi ahadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mais Sahih Bukhari Sahih Muslim ak yeneen yëpp kutub sitta waaw di ponkal nax bàyyam tamit tuddul woon sax Mouhamadul Haafaz parce que alxaafaz moo ngi mel ni ngay dégg ñu ne diw docteur docteur xam nga du tur hmm? wala ñu ne kii euh, professeur professeur xam nga du tur wala ñu ne kii euh, chirurgien chirurgien du tur alxaafaz foo ko déggee. am na ñu tudd xaafis nag léegi ndax tur wa moo mujj sax ba ñu tuddee nit Mouhamadul xaafis mu tudd xaafis wala ñu tuddee kii xaafis naan waaye alxaafis foo ko déggee ci xam-xam li ci ëpp ci xam xam-xamu xadis la am na nombre de xadis yooyu mokkal ak dégg goo dégg ak xam silsile yi mooy xadis bi ku ko soloo ku ko soloo ku ko solo ba mu àgg ci rasulullah yi am na ci benn nombre ak benn taxawaay booy am ci xadis ke sa tur dañ ciy yokk toujours comme ni ñuy yokkee professeur Ibrahima Diop wala professeur Mouhamed Dia ni ñuy yokkee professeur te bokkuluñ sa tur wala commandant noonu la ñuy yokkee sa tur alxaafis alxaafis bi gën a siiw nag moom la ñuy wax alxaafis ibnu xajar al asqalaani léeg-léeg nga dégg ñu ne alxaafis suyuti wala ñu ne alxaafis shafii imaamu shafii Cheikh Abdul Xaafis nee nañ ëpp mokkaloon na lu ëpp téeméeri junni xadis nga loolu du caaxaan plus de cent mille xadis moo koloon na ko xam xadis bu nekk lan mooy càllale ga ba ca rasulullah ak xadis yëpp problème ya ca am li ñuy wax jarx wa taadil xam-xam boobu nga xamante ni mooy xam-xamu xadis yàlla daf ko ci defaloon cër bu rëy ba azhar ci boppam reconnaître nañ ko heure bu ñu amaan sax problème ci xadis cheikh abdul hafiz papa yi kii moom la ñuy seeti kooku am na cër mais ñun li gën a tax ñu fonk ko bokk na ci li tax ñu gën ko fonk dafa ci les premières personnes les premières personnalités du monde musulman et du monde tidiane ñu def biographie bu Cheikh Al Amr al Fouti loolu il faut que nous ñi xam ko loolu ñu bëri xamuñu ko ci Cheikh Abdul Hafiz dafa bokk ci les premières personnalités du monde musulman les premières personnalités de la tariqa tijaniya ñu bind ci Cheikh Al Hadj Amr Al Fouti te moment boobu noonu. bind gi mu bind ci Cheikh tax na Cheikh Omar doole ja mu am ci Égypte ba tey jii néew na sëriñ am ko fa te loolu li ko waral mooy xalima Cheikh Abdul Xaafis ndax xalimaam dafa amoon doole xalimaam dafa dëgër su bindee ñépp dañuy signé kenn du ko weddi au contraire day dégg kuy wax dara mu def bindam wala mu def ab texam su bindee ku liir daal ne gongo moom noonu la ko yàlla bindee woon moo ci ñi njëkk bind ci Cheikh Umarul Fuuti wax surtout comme li ma doon euh, wax kéro ci waxtan wi ne Cheikh Omar ñun gaay yi ñoo ñuy imposer di ñu jangal ne Cheikh Omar guerrier la won rek mais moom moo njëkk a la dimension intellectuelle de Cheikh Omar génne sa dimension politique génne sa dimension de conquête de l'Afrique pour tek ko ci loxo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci ñi ko njëkk a découvrir yamu ca mu reconnaître ko yamu ca mu bind ko ba noppi waxtaane ba amul ben kilifa boy deg ci kilifa yu mak ya nek ci Égypte ba tay ji ma lay wax ni ludul am un respect une déférence et une très grande reconnaissance à l'endroit de Cheikh Al Hadj Omar Fouti. ces livres dañ ko respecté dañ koy lire dañ koy bayyi xel même ñu dul tidiane rimaax bu Cheikh Omar bi dañ koy jël diko di ci barkelu yeneen téré yi ñu bind ci Cheikh Omar dañ ci jël diko barkelu barkeelu waaye bind yi Seydi al hafid radiyallahu anhu bind ci Cheikh Omar ba tey ji dañ koy jël di xam ni ndekete ñoom am na ñu baax waaye am na tamit ñu baax feneen loolu yaakaar naa mbokk yi loolu honneur boobu rek war naa tax ñun ñëpp ñu bàyyi xel Cheikh Omar al hafid radiyallahu anhu waxuma la nag cër bi mu am ci tarixa bi nga xamante ni jamonoom ñëpp nangul nañ ko ne mooy xalifa Cheikh Tidiane loolu c'est très rare ñëpp ñun nit ñu weex nit nit ñu ñuul ñi ñëpp ko nangul ndax daf ko mate ci charia ndax kenn raw ko woon ci kaw suuf daf ko mate ci xaqiqa ndax li mu xamoon ci baatin kenn xamul nu mu daf ko xamoon ci tarixa ndax tarixa bi am na lu ci bëri parce que jamono bu nekk dafa am ay problèmes yoo xamante ni c'est des problèmes actuels de la su Seydi Sukayri radiyallahu anu bi jamonoom ñëwee mais am na lu mu ci corrigé lu bëri rafet defar ko yi ñu waxal cheikh te wax te du dëgg mu corriger ko defar ko yii nga xamante ni ay ay question la gars yi posé ko tarixa bi gars yu bëri mënuñ cee répondre mais moo ko jël tontu ko ba tey jii tontu yooyu moom la ñuy jox pànk yi ñu koy lijjantee képp ko attaqué tarixa bi Seydil Arabi ibnu Saih radiallahu anhu moom it ba ba ba ba ba ba défendre tarixa bi jot dafa jug bind ay kayitam daal taxaw ci taxawaay répondre les questions de l'heure waaye Cheikh Abdul Hafiz tamit les questions de l'heure yi ñu posé woon tarixa tijaan moom moo ko répondre woon kooku dama leen wax papaam rek ngeen xam moom ci lan la doon noonu ba faatu ci ak nan la faatoo c'est très important papaam dafa bokk ci ñi nga xamante ni respecter tarixa tijaan dans le monde universitaire dans le monde des des grands savants papaam daf ci bokk parce que léeg-léeg daan nañ amay borom xam-xam mais c'est i que lañ nek c'est i daayira lañ tok di jàngale mais Cheikh Abdoul Hafiz imposer tariqa tidiane dans le monde universitaire imposer ko ci Azhar imposer ko ci li ñuy wax euh, majlisul euh, majlisul turq suufiya moy le conseil supérieur des turq sofia des des voies soufis bi nekk ci Égypte daf ko fa imposer ba ñu reconnaître tariqa bi parmi les 93 tarixa yi nek ci Égypte waaw donc euh, kilifa la gu mag maa ngi ñëw gis nga si Abdoul Hafiz radiyallahu anhu est-ce que xam ngeen ne tarixa tijaan ci ñu ko dugal njëkk a dugal ci Europe ci la bokk te y a des preuves ña fa nekk njëkk nekk tijaan taalibeem lañu Italie ñooñ Italie moom muqaddamam ba fa nekk man xam naa ko daje naa ak moom ak Faas Faas 2006 ren ji euh, gàmmu daaw ndax am na ci mbokk yoo xam ne dañ daan dégg ma koy tudd fii ci ci xadra bi ba ñu demee gàmmu daaw daje nañu moom faas mu ngi tudd Abdou Samad Pawlo am na suñ benn mbokk ku ñuy wax nu Mbaj di ngeen dégg leen ma koy tudd daje na ak kooku daaw Abdou Samad Pawlo lu tudd bi ñu waxtaanee ma koy laaj ci mbiru tarixa bi ca foofu ca fi ñuy wax Rumini mbokk yi ñi nekk Italie nekk Rumini zaawiya bu mag a nga foofu ab italien moo ko jiite mooy may wird mooy joxe ijaasa yi mooy tarbiya mooy def lépp Abdou Samad Paw loolu tudd waaw ndeysaan ñuy waxtaan ci tarixa bi en 2006 waxtaan waxtaan wu yaatu ndeysaan am ne ma est-ce que xam nga ni tarixa tijaan ci par voie épistolaire la duggee ci presque Europe ak les pays balkans pays balkans yi pays scandinavie pays balkans yi ak Europe Italie Allemagne ak dëkk yu bëri par voie épistolaire la fa duggee ma ne ko la la par voie épistolaire mooy par lettre je veux dire par lettre par correspondance lettre mu ne mu ne lettre ko Égypte mu tontu dañuy lire réponse diko lire ba xëy diko lire ba jël wér di salaat faati di ko ba nek muqaddam tarikhat bi mujj gi ñom dañu mujj bàyyi seen fëndëk dem Égypte jàng fofu xam-xam dem ba mujj nek ci Azhar ay étudiant yu mag ba am fofu ay diplôme ki ma lay wax ni daje nañu Abdou Samad Paulo sama gaay yi ñu ci bari xam nañ ko ku melni mel ne Hadj ñoo bokk xadra Thierno Mbaj mi su ko nexé mëna def témoignage dajena ak mom bu dee ngi suivre dajena ak mom daw ci gamu gi waa doy war la lu nek la xam ci tarixa bi billahi la wax lu nek liko top ci ay doomu adam amna ay sénégalais yo xamanteni sax mom mom mo leen jox wërëd ibrahim dengali mo wax tarixa bi amul ay askan ak ay fiira xar mi jaar dedet mbiru haqiqa la nit ñi dañu xiif ku am lu lek nit ñi dañu ñëw sukk ci kanam waaw so amul nak ñu dem mais mom dama ne la am na ay sénégalais yoo xamante ni moom mooy seen sëriñ moo leen may wérdu salaat faati li muy zikkar ak li muy ni muy tarbiya bu bu doy waar la yor ci tarixa bi moom Abdou Samad Paolo boobu waaw daje nañ euh, macha allah ay taalibeem sax moom ci boppam am na bis may jóge euh, Sén may jógee Maroc jaar Tunisie ay taalibeem bokk nañu bokk nañu ndeysaan euh, avion keroog ñoo bokk julleendoo bokk wirdando wasifandoo ci bir avion bi et tout moy talibem yu bax ta talibem bobu ma len di wax ni kérok mang koy wax ñuy waxtaan tarixa bi ni bam wax ma ne ma projet bi ma nekkee ni moy damay firi buxyatul mustafid li sharh muriyatil murid bu Seydil Arabi Ibn sa'ih mun du koy traduire en italien te mu ne ma du ko traduire en italien ce sera facile pour traduire en français et en anglais rapidement parce que am nay logiciel yu dox ci lool avec des ajustements rek donc kilifa gu mag la ñëw na senegal mag ñëpp xam nañ ko de ñoom Abdul Aziz ñëpp xam nañ ko waluy bu mag la ku doo ko gisee rek moom doo ko gisaan nii rek da ngay xam ni kii borom cër la moom doo sikki sàkk cëram man ki ma njëkk nàndal ci moom ma sopp ko te boobu musuma gis photoom musuma ko sax musuma liir dara ci histoire am sunu papa imam alaaji ahmad baro njigéen la Pape yàlla seede na loolu pourquoi ma wax loolu mooy imam Égypte la nekkoon loolu yéen ñëpp xam ngeen ko def na foofu presque dix-neuf ans di jàng nee na ma man sama xadaral jumaa yëpp maa ngi ko daan defee ca zaawiya bu Seydi Mouhamadul Haafis kon xam na ko mu ne mu bokk naa ak moom lekk ba tàyyi mu naan ma kul yàpp yëpp nii kul yàpp nii lekkal sama doom lekkal lekkal nee na duy lekk comme na maam alaaj daan def noonu radiallahu anhu suy lekk ak yow di tibb morceau yi gën a baax di ko teg nee na seydul xaafis seydul xaafis radiallahu anhu noonu la noonu laan def suñu doon de bokk di lekk nii neen day dagg morceau yi fa mu gën a nooyee gën a baax di teg naan ko sama doom lekkal sama doom lekkal mook ñoom cerno haadi haadi muntaqa taha taha cheikh omar cerno bachiru mii am na frère am bu ñuy wax cerno haadi dafa faatu faatu ci jamono ye ci ginnaaw après 97 ndax Cerno hadi bi mo julle Maam Alaaji Cerno hadi tal doomu Cerno Muntaga doomu Cerno paha doomu Cerno Cheikh Umarul Fuuti radiallahu anhu mo julle Alaaji Muhammad Njegen Cerno hadi te Cerno hadi mi imam nee mom ci keur ci kër Seydi hafiz la nekkon amna lu beuri ci tarixa bi Seydi Mouhamadul Xaafis moo ko jox am na yoo xamante ni c'est personnel moo tax du ma ci dugg xam naa ko nag xam naa bu baax li may wax waaye loolu seen mbir la man du ma ci dugg waaye ca këram la nekkoon moom ca këram la nekkoon am na lu bëri ci tarixa bi seen dal xaabis ma ko jox moo tax moom it man am na lu bëri lu ma xam ci Semdul Haafis te boobu xaw ma gisuma photoom musuma lire histoire am Cerno Hadi mii moom ko doon wax ndax man dama daan woo di waxtaan ak man muy nekk nit yàlla boo xamante ni sëñ Abdul Xaafid Cerno Haadi mii heure boo bu ma ñëwaan ba ñuy toog ba mu ba muy tudd sëñ Abdul Xaafid da ngay gis ci saa si mu soppeeku wallaahi defaruwaat defaraat toogaayam ndeysaan waaw di di di ñaq di am yëg-yëg yu xamante ne da ngay mujj xam ni kii ki muy tudd ku rëy la ku foor la man ci laa commencé di ko sopp di ko bëgg. su ñëwee tam ma koy laajaat ne ko waaw sëñ Abdul Haafis naa nga mu mu expliqué mu ne waa ju waar la waa ju waa ju yéeme la ku ku am wilaaya am kashfu am xabul gaaw ci àggale ci yàlla waaw léeg-léeg dala daan woo rek benn guddi rek nga fanaan ci këram bu yenn guddi rek la lay fanaan loo nga toog rek mu wax loolu ay kàddu waaw <laughs> nga am li nga bëgg ci yàlla waaw léeg benn jotaay nee na moom noonu la meloon xadaral jumaam nee kenn xamul kii bi mu amoon xaal ba fa nekkoon ak ni nga yëgee teewaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te moom la rek waaw am na ñoo xamante ni fu ñu nekk yonent bi soxla faa ñëw ndax ñoo yonent bi waaw dégg nga wax ji Ibrahima déedéet lu muy déplacé wu Madina ba feneen moom moom ko ñoom ñooñu yonent bi lañ da ngay daan yëg ne yonent baa ngi toog ci xadra bi da nga daan yëg ni yonent baa ngi toog ci wasifa bi te da ko daan gis nii di ko wax di ko wane ku ku mos a dingat mu woon la yonent bi mu jeex jàng yi jeex gars yi foofu lañ tolloon sëñ bi yi ñuy wax ni du ay ay léeb ak ay kii de maa ngi koy wax ñun yi ñuy wax ci yonent bi nii du ay léeb du ay xalaat ak du ay rêve ay ay ay ay kii ay ay ay illumination ay ay kii ni koy waxee ay euh, ay euh, xamu nu ñu koy waxee daal waaw ay ay ay ay ay ay ak i ay ay yooyu yooyu calculer sa bopp lijjanti ko ba mu nekk sa bopp ba nga imposer ko sa xel ba mu nekk ci ba nga koy gis déedéet lépp xaqiqa la waaw loolu il faut ñu xam ko donc yàlla seede ne mën naa leen wax ci lu ci moom lu bëri gis nga doomam jii nii 2007 2007 da ngeen ma jéggal wax naa leen ko ci benn waxtaan man lu may wax day nekk ci téere bu wóor baa mu nekk man lu ma lu ma dund pour man looloo gën a ma parce que am na détails yu bëri problème yu bëri yu ñu am ci diine jéeg tarixa bi mooy nit ñi dañuy wax xamuñ ci dara dañ inventé wala ñu dégg ko ci ko xamante ni moom wax wérul cheikh Ahmed Mohamed Al Hafiz bii doomu cheikh al Hafiz en 2007 dafa avait une rencontre internationale même universelle sur la de la tariqa tijaniya il y avait 2000 participants et 40 pays C'est Serigne Mounirou ambassade bu Maroc ak buuru Maroc joxoon na ko dix-neuf personnes ñoo àndoon ak moom dem ca ziar boobu Serigne Muniru demoon na mu jox maam Aziz maam Aziz yabal doomam sëñ Dàmbaay Njigéen demoon na sunu pap alxaaji Xalifa Gay demoon na gis nga am nañu ca faar suñu pap alxaaji Duut Saxiir Njigéen demoon na yàlla na ko yàlla yërëm sunu pap imam Abdoulaye Njigéen demon na yàlla na ko yàlla yërëm sunu pap Serigne Moustapha Njigéen demoon na yàlla na ko yàlla yërëm sunu papa sëñ Ahmed Cissé njegeen demoon na moo ngi fii yàlla na ko yàlla bàyyi guddoo guddoo li gudd fan sunu papa imam Ahmed baru Ndiéguène demoon na yàlla na yàlla guddal fanam imam alaaj Modou Cissé demoon na Serigne Doudou Ndiéguène demoon na moom Mamadou Ndiéguène journaliste demoon na am na beneen xaritam demoon na am na ku ñuy wax sëñ Ousmane Ndiéguène demoon na dégg nga dégg nga waaw lim la lim 19 personnes lan daal man mii seen jaam bii demon na waye kérok yàlla sédé na ni hadra juma bi ñu njëkk a def personnes yëpp ñëw ak talibé yi nekk ci Maroc ñëpp fàq ñëw zawiyu ba fess del del del del del del ak ay doomi adama kérok serigne Muniru ak Cheikh Ahmad al Hafiz ñoo bokk ben rangé buñ tok seeni pooj ñoo tegloo ni serigne Muniru njegen ak Ahmad al Hafiz ñoo toogoon nii ñoo toogandoo nii photo yi moo nga foofu ca Thiès xam nga loolu Ibrahim yaakaar naa pour wax leen ne leen euh, mbir yi euh, dara jegew ci ay caaxaan lépp xaqiqa la lépp euh, dëgg la waaye lépp tamit loo xamante ni lu yàlla gërëm la te lépp dafa am ay preuve lii may wax nii ci Cheikh Abdul Haafis radiyallahu di ko junj di ko expliquer

du arab du ben rew du ben shérif du kenn ndax bari na ci sax shérif yo xamanteni mo nekkun sen serigne ndax mom shérif la waye amna sëtu cheikh yo xamanteni mo nekkun sen serigne comme ni Seydi Ali Tamasini nekkon sëriñu njabootu cheikh mom Cheikh Abdoul Hafiz mi amna ci kilifa këru tarixa bi ñu bari sen silsila mo ngi jaar ci Cheikh Abdoul Hafiz mi Mahamadul Hafiz Tijani al Misri kilifa la waye dama ne mom mo ñëk def li ñuy wax ci tubaab am na nu koy wooyee ah, am na nu koy wooyee ci français delloowaat Cheikh Omar cëram moo ko njëkk a def indi dimension militaire am ba mu wóor waaye ne leen lii c'est une partie de sa vie indi yeneen dimension mi ba ñëpp xam ni Cheikh Omar du moroom benn góor mën leen xanaa yéen sax waxuma dara mais Cheikh Omar xanaa le fait rek moom dong muy nit benn mindeef bi am cëru jawahirul maani bu cheikhu Tidiane Cheikh Omar moom dong muy bind benn benn créature yàlla benn mbindeef de tout tous les temps de toutes les époques moom donc moo am honneur livre bi ñuy wax day maaxu wër jawahirul maani mu ne xanaa loolu rek waroon naa doy sëkk pour xam ni Cheikh Omar du marum góor Cheikh Tidiane ñi ko waroon ñëw ay ponkal lañu ay borom xam-xam lañu waaye kenn amu ci cër boobu moom dong moo am loolu tarixa Tidiane mu ne loolu rek waroon naa doy sëkk après nag ci la expliqué moom historien loolu bu mag ku am xam-xam ku ku dégg sharia ak xaqiqa ak tariqa leeral yu bëri waaw donc xam naa téere boobu amoon naa ko ca dëkk ba suñu yàlla dimbalee ba ma ba ma jotaat ko maa ngi koy wax Ibrahima Sànq ne ko léegi-léeg téere yi boo soxla rek dootu ko gis waaye duñ ko jotee dinañ def émission spéciale direct spécial ci Cheikh Abdoul Haafez lan la wax ci Cheikh Omar Fouti waaw gaay war nañ ko geustu bu baax waaw donc euh ma sha Allah taala yàlla na yàlla geureumal ñu Cheikh Mouhamadoul Hafiz ci lu lu baax limu def ci Égypte limu limu setal Cheikh Tijani ci fenn yuñ ko fenal ak sos yuñ ko sosal limu rétablissement rétablissement la doon wax terme bobu la doon wër en français dafa rétablir Cheikh Omar dans ses droits waaye yemul ci Cheikh Omar mais toute la tariqa tijaniya Cheikh Abdul Hafiz daf ko rétablir toutes les vérités toutes les fausses contre-vérités ak toutes les tous les mensonges yu ñu jël askane la ko Cheikh Tidiane mu dindi ko ba mu set indi ay preuve teg ba mu leer daal di tamit wér du tarixa bi nii mu mu expliquer ko explication bu simple am na ahzab ahzab wa awraat bi sayfi yu nekk ak xisbul bahreeg yooyu am na ancien mooy borom bindu yu sew yi yoyu c'est les anciens ouvrages mais bu muju bi nga xamante ni couverture bi day ñuul wala couverture bi weex mom moko défar pour lan expliquer bi de manière très sommaire simple ku ko liir xam ko mais mu firi ci salaat fatiha de manière très claire simple firi ci jawat kamal de manière très très claire simple expliquer wir tarixa bi nan la ak naka la même fiqhu tariqa bi am lu ci bëri tey jii nit ñaa koy wax te ñu ne mo ngi jógee ci Cheikh Hafiz radiallahu taala anhu kilifa la de ku ñu war a jàngat la yàlla ñu yàlla dimbali ba am jot mën def émission spéciale moom ci moom kilifa la gu mag waaw kilifa liñ ko gën a xamee nag mooy xadis moom wax moom lañ muhaddisu diyaar al misriya waaw muhaddisul asri muhaddisu diyaar al misriya waaw xam-xamu hadis moo ci tegoon tànk ñëpp sukkaloon nañ ko nangul nañ ko ca maa ko wax te bokkut ak la mu am ca xaqiqa ak ca ca baatin mën expliquer yu bëree bëree bëree bëri ci moom man dama koo xam de te xam gi xam-xamu ciofel la waxna len nak xam-xam bi fimu jóge waxna len ne len fonk gi fonk Cheikh Omar taxna ma bëgg ko waye avant muy xam loolu ci Cheikh ma xam ni bind na loolu ci Cheikh Omar mom ci bopam sama papa ila imam alhaji ahmad baru njëgéen mo nga Cees ku bëgg demal nga laaj ko demal len ngeen laaj ko ko ne ko kan moy Cheikh Ahmadul Xaabas kan mooy ahmad al habas laaj len ko ko xam na len waye ka ca dess mom dem na mooy Cerno Muntaga Taha Taha Cheikh Omar Cerna Hadi ndaysan momit wali yalla bu mag la won wali yalla bu mag la won mok cerna bashiru ak cerna Makki papa yi seigne Cheikh Cheikh Jantal ah ak Cerno Habibu deg nga euh, ñoom boku ñoo bokku ben bay ñoo bokku ben bay Cerno Muntaga di seen wayjur Cerno Hadi mo jullee alaaj mohammed Diegane lolou wax naa ko sànq gis nga Cerno Hadi euh, léegi leg du waxtan ak mohammed man daan naa ko fekke seen seeni tànk laa daan toog ndax moom it dafa bëggoon Cheikhu Tidiane jeex ci moom tàkk léegi léeg dama daan wax ne ma comme bëti dafa muur woon damay wax ne ma jëlal way sàngam ma jël ko ci fi ma laaj toog noonu moom toujours sama maam du toogaan nii njabootu Cheikh Mari toujours fauteuil ba gën a mag la leen tegal ci wetam so bu ñu toogee nag mooy papa seen Cheikh Tidiane Tall mi mooy Cerno Makki wala yàlla bu mag la woon moom it dafa làqatu ba dem ak Cerno Haadi ñi ñoo fa mujj kéro bi sama mam di faatu ñom ñaar ñofa nek nekk cerno makki mo jox ndigal cerno haari mu julli alaaj muhammad jigéen radiallahu anhu gis nga suñu suñu xasaan ba tok ci salle bi fofu parce que ñom ñep non la daan def suñu xëyee suba dañuy ndékki toppatoo gars yi dem ziaré len boori 10 heures ñu ñew nak ci mam alaaj suñu ñewé ci salle bi fofu lañuy tok fofu lañuy tok ba midi ba 13 heures cerno haari delu ci kër mam pap ousseynou njigéen pap cerno makki delu ci kër mam ousmane non la daan def mais alaaj Mouhamed Ndiéguène ormaam ci kër kër Cheikh Omar mbaxana sax dootu ko sol du Cerno Haadi toogee Cerno Màkki wala kenn ci ñoom du toogee dootul ñaanal kenn dootul moccal kenn dootul waxtaan ak kenn ci yàlla ku ñëw mun la demal ci surtout Cheikhu moom surtout Cheikhu la daan wax Cheikh Omar c'est bariwul woon lu mu daan àgg ci Cheikh Omar gi sax Cheikhu rek la daan wax moom foo déggaan mu ne Cheikhu rek Cheikh Omar radiyallahu anhu su Cheikh Mat bu Cheikh Tidiane Cheikh wax loolu la comme Salam donc euh, Thierno Haadi euh, wuli yalla bu mag la ndax bis ngi ci pilian bi ñuy waxtaan ci muy waxtaan wax ne ko euh, sama di expliquer affaire di ñuy waxtaan mbir ma ci so mam ne ko ah haadi yow xam nga ni mos da nga bëgg ñu waxtaan rek waaye xam nga ni ba bëti muru bëti muuroo ak ba bëti muuroogul waaw ñaar yooyu ci ñaari jamono yooyu ban ban nga ci gën gis ma daan ne wa ñii lu ñuy wax ni boobu man xale la xaw li lu ñuy wax mais par la suite la comprendre li ñuy wax est ce que dégg nga wax Ibrahima. Mhm. mu ne ko mu ne ko haadi yow da nga bëgg rek waaye xam nga ni yow yow yow. waaye yow ba bët yi muuroogul ak léegi nii la ban nga ci gën a gis xam nga lii luy luy wolof nangu xel nangu ko ah <laughs> neen na Thierno Thierno daal di koy tontu ndeysaan daal di ree moo xam ni góor gi xam na li xew parce que koo xamante ni yow bi ngay gis say bët ngay gis avec les yeux de la tête yaa ngi gis fi sa environnement ngay gis yàlla muur say bët ngay gis ba màkka ñaari bët yooyu bu gën a bu gën bu ko ëpp doole ah Ibrahima. bët yi muuru bët yi muuru loolu la ko bëgg a wax man par la suite laa xam li ñu doon wax ndekete waxi wala yu leen doon waxtaan seen biir waxtaan wu foofu la yem de Thierno Hadi àggale lu mu doon wax de moo xam ni góor gi jàpp na ko ndeysaan keroog seen waxtaan bi foofu la yem waaw ndeysaan donc euh, ishaara boobu bëtu xol lay lay junj waaw sa sa sa sa sa basira la koy wax ak sa kashfu ak sa gis yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sa maam Cheikh Omar ndax ndax avant ngay beuti du mourou ban ak legui ni ban mo gëna fort loolu la doon wax donc waxtan yu doy war la pour wax len Cerno hadi wali yàlla mak la won yàlla na yàlla yokk leeram moo jullee alaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu taala anu ci 14 août 1997 ci kër maam alaaji ci ndigalu magam di Cerno Makki Muntaga Taha Taha Cheikh Omar loolu na ngeen ko bind ta noté ko ta bañ ko fàtte ba faw loolu lu graw la ta amna yu ci la xassu de Cerno Cheikh Tidiane Tall radiallahu anhu mi wax nañu ko ca grenoble dafa ànd ak bàyyam di dem ñu ñëw ba boori Thiès rek mu ne ko cheikh nañ jàdd mu ne ko lu tax mu ne ko ah, sa ba sa sa maam alaaji mouhamad njigéen waaw day dem te son maam nee na dañ ko war a gunge moo tax maam alaaji bi muy faatu ñaari doomu cheikh omar ñoo ko ñoo ko séq cerno haadi nekk kër pape ousseynou cerno màkki nekk kër maam ousmane ñoom ñaar ñoo séq ruuxam gi ba mu àgg ca yàlla dégg ngeen wax je xam nga bokk <laughs> yooyu yëpp ay ay sew sew la pour wax la ne la gars yi ay kilifa la ñu mag dañoo dañoo yaru rek ta noppi waaye suñu yëngaloon kenn du am dara mhm. yàlla na yàlla fayal ñu leen donc Cerno euh, euh, Haari euh, laa doon barkelu tuuti noonu waaye da ngay dem ci Cheikh Abdoul Hafiz Cheikh Abdoul Hafiz yaakaar naa fi ne nii yéen ñëpp am ngeen ci moom idée bu baax am ngeen gis-gis ci moom bu rafet xam ngeen ni ponkal la bu mag moo jur nag Ahmad mi faatu Ahmad Mohamed Hafiz kon léegi lan la ahmad don ci baayam mooy li ma wax yëpp mooy xam-xam ragal yàlla bëgg yàlla bëgg yonent bëgg cheikhu tidiane fonk cheikh tidiane malgré yi ak wilaaya bi ak maqaama bi leen gis toog ci am jox leen ko toog te ñi ci bëri ci ñoom dama ne am na ci ñoom te ni seen papaam mooy seen sëriñ am tarixa bi amul askan ki yor rek la ku soxla ki yor dem ca moom mu jox la jeex <laughs> waaw te du waxtaan wi guddoon ma expliqué lépp mën naa laa jox détail yëpp ndax am naa ci silsila yooyu yëpp xam naa ko foo silsila jaar ci Cheikh Xaafis xam naa ko te am na kilifa yu mag moom lañ yor wallaahi kilifa yu mag moom lañ yor loolu yàlla bu mag la woon Cheikh Ahmed donc moom papaam tombé woon ak télévision mais moom moo tombé ak télévision Azhar TV bi mu génnee ci ñi ñu njëkk a tànn pour muy firi ahadis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk loolu doy na cër. ci kilifa yi ñu gën a fonk ci Égypte ci la bokk loolu doy na cër 93 tarixa yi seen majlis bi moom ci ñi ko jiite ci la bokk maa ngi liir sànq docteur Ali Jumaa def na déclaration bu doy waar ci Chamdul Hafiz nee na wëli yàlla bu mag bi dem na nee na aarif billah bu mag bi dem na nee na ka bëggoon yàlla ba jeex ci moom tàkk dem na ka bëggoon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba jeex ci moom tàkk dem na ka bëggoon Seyd Ahmad Tidiane ba jeex ci moom tàkk dem na ka bëggoon bàyyam ba Chamdul Hafiz ba dem ci ba jeex ci moom tàkk dem na nee na tey jii lislaam ñàkk na ponkal bu rëy nee na tarixa tijaan ñàkk na ñàkk na ponkal bu rëy nee tasawuf ci boppam ñàkk na ponkal bu rëy nee na wuluy bu mag dem na fekk yàlla te nee na lii moo kon damay ñëw ci faatu gi dafa demoon di waaraate ji di tuubal nit ñi di leen jox wérd di leen àggale ci yàlla bi mu julle fajar démb ci fajar dafa julli fajar ci sujjóot bi ci sujjóot bi ca la ca la ko yàlla jëlee al mawtu ala sujud loolu bind leen ko njóogu bu dee yaa ngi ci bindal loolu il est mort en prosternation sajid sajidan maata sajidan raxala ila rabbihi sajidan te yonent bi lu mu wax moment bi jaam bi gën a jege boromam kañ la mooy su nekkee ci sujud yàlla lu mu wax ci alquran wasjud waqtarib sujootal nga jege yàlla <laughs> julli fajar di waaj a wasifa ci sujjóot ba ci la ko yàlla jëlee xool leen li ci yàlla teg yamul ci loolu de te dafa demoon woote ni ci yàlla mooy da kon dafa dee ci sabilillah di tuubal nit ñi di leen jox wérdu salaat fatiha di jël leen jox ijaaza di leen fàttali seen borom ci la faatoo man nee naa la barki démb rek moo ngi woon Soudan ak Tchad ak Nigéria Ghana la waroon dem yaa ngi dégg li ma bëgg a wax donc diggante bi yëpp fu mu fépp lay dem am na ay taalibeem yoo xamante ni moom moom am na ñu jàppoon ci papaam yeeslu ci moom am na ku ci wax aadama nefti wala nefada ñaari tur yëpp baax na moom la gars yi bokk xaram rey maa ngi koy waxtaan ak léeg-léeg parce que parce que bëgguma ñu fàtte ko moom dañ koo fekk mu ci biir julli moom lañ ko dooree reebal ak ay taalibeem yëpp ñu dee te kooku am na près de million millions de taalibe te xam nga taalibe yi ñu ci ëpp ay arab te moom nit ku ñuuloon kukk doole moo ngi yemen fa la baree taalibe ah aadama ah, ah, bi ma wax de aadama nefadaa bii wala nifti boo ci wax baax na eh, eh, doo ay taalibeem ñoo ñoo nga ëpp woon fi ñuy wax fan yemen ak Oman ak Arabie Saoudite ak Makka mooy Makka ak Madina ak fan tout le golfe pays golfe ak fan Palestine surtout Palestine Palestine niiw na borom xam-xam bu fa nekk te nekk woon taalibi aadama nefta nefadaaba te aadama boobu chemdul xaafis moo ko tarbiye jàngal ko xamal ko may ko may ko lépp ci tarixa bi waaye kii moo mujjoon nekk sëriñam kon dul ahmad mohamadul xaafis li mu amoon ci taalib bi kenn xamul nu mu toll ndax taalibeem bii rek moom samp na dix mille zaawiya fukki jëndi zaawiya dix mille ah kooku am na taalibi ñépp xam nañ ko ci diggante Tchad ak Nigéria ak Soudan ak Niger ñëpp xam nañ ko waaw kon kilifa gu mag moo daanu euh, euh, Cheikh Ahmed Mohamed El Haafez gis nga li ci li ci garaaw gis nga cofeel dafa graaw nit soo ko soppee cofeel dafa garaaw Ibrahima mahabba dafa graaw dama leen jox preuve bu leer léegi moom dafa julli fajar ci biir julli fajar gi ci sujjóot bi dañoo pare fekk ko mu daanu mu faatu ci biir su jóot bi kon set na wicc su la neex ñu jël ko noonu dem suul ko set na wicc ci biir julli la faatoo shahid la te dafa waroon di tuubal nit ñi di leen dugal ci lislaam ba yàlla jël ko benn ngoog sëram ñu woo ko ci Égypte rek ne ko sa mbokk mi faatu na moom it ca saa si mu dee mu ne li ko rey du ma fi bàyyi yàlla la bëgg a fekk ji man damay fekk ji yàlla dem na lu may defati ci àdduna jeex na ca saa si la faatu sëram يالنا يالا يرم لين يالنا يالا تيغال لين يالنا يالا بال لين يالنا ندجيك سين بايبا شي عبد الحافظ يالنا ندجيك سين مام جي سين سيرين بس دي احمد تيجاني رضي الله عنه يالنا ندجيك سانغ بو ماك با سونو سوبي با سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وير ويغا خامتيني مايو شيخ يالا داكاي يوكات يالنا تي سيد سيد احمد محمد الحافظ بام دويال تا نيون ني مو نيك سونو باركي اك سونو القران اك فاتو نيب تي وا tabaarakallaahu tey xam ngeen ni euh, daan nañ wax lu gën a kii lii waaye tabaarakallaahu dem ba tey sunu yaram waaw donc kon daal yàlla na yàlla yërëm yàlla na yàlla ko euh, donc Ibrahima bu dee am nga loo ci wax nga sànni ndax euh, soo àggalee ma mën a wax lan moo tax ñu dimanche bi ñu def direct yéen ñëpp xam ngeen lool samedi ak dimanche dañ ko daan noppalu lundi ba mardi ba jeudi li ci ëpp lañu arrêté bu dee dem vendredi bi am nañ temps ñu def mais comme takusan gi dafa jégué fi ak timis bi daanaka duñ ko def donc ñeent ñetti fan yooyu rek la def dimanche bi ak samedi bi musuñ cee def direct waaye tey euh, situation exceptionnelle des règles exceptionnelles yëpp yëpp changer mo tax ñu changer mais dafa am tamit lu laxasu ci ginnaw lan motax may waxtaane ku melni ni Cheikh Abdoul Hafiz mi ak njabootam wax kii sànni sa kàddu soo ma soog a leeral loolu parce que nit lu lu mu nekk daf ko wut am solo bismillah Cheikh Ibrahim Diop. waaw ah, asalaamaaleykum ni ko waxee rek di jaale suñu euh, Cheikh Mouhamed Hafiz. yàlla xaare ko àjjana yërëm ko donc man comme li may dikkee rek comme ni nga waxee ci cofeel dafa fort donc cofeel googu ñu amoon ci Cheikh Omar nga xam ne ni ba bàyyam bu sell ba rétablir ak bindaat ay ay livres justement pour redorer blason Cheikh Omar Fouti donc mën naa ne suñu étude boobu wane na ni moom tamit fi nga xam ne Cheikh Omar parcours na ko au niveau de l'Afrique tout ça donc daanaka moom ci parcours boobu la nekkoon aussi doon doon tuubal Mhm. doon doon doon joxe wér doon doon doon saxal tarixa cheikh mhm. donc loolu day wane nii rek cofeel dafa am solo donc mhm. nit ki doo amee cofeel ci moom daanaka li mu daan def yëpp yow yàlla mën na dimbali ba ngay nekk ci yooyu donc loolu tamit lu lu am solo la donc loolu laa doon loolu laa doon sànni kàddu rek ngir euh, marqué enfin ci boobu noonu mooy parcours boobu te yàlla def na tamit ci ci loolu la ko jëlee comme ni mu jëlee woon Cheikh Omar ba mu doon jihaad jihaad ndeysaan wallaahi wallaahi wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan lu jaral leeral la te lu am solo la mhm. donc day fi ne rek ni damoon dem mooy tey donc mhm. la mag ñi daan doxal am na ñoo xam ne ñoo ngi continuer di doxal loolu te mhm. mën naa ni kenn sax du leen xam wallahi waaw waaw liggéey yu am solo la ñuy def wallahi des tra liggéey di exceptionnel waaw dëgg la dëgg la Diop loolu daal lay loolu laa ci am waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ndeysaan jërëjëf Diop jërëjëf xam naa dinañ ñëwaat léegi ci yow incha allah donc wallaay wax nga dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax moo wax ne yàlla gindee ci yow benn nit moo gën lépp li jant bi tiim mag ñi sax dañ koy misaale ne moo ngi mel ni addu àdduna bi nekk ab ab mbuus ñu def ko jamaa ba mu fees ah benn nit gindeeku ci yow moo gën loolu xam nga loolu xel nangu ko sax ci loolu ban machine moo mën a calculer nombre de milliards de dollars de milliards de milliards de milliards de dollars loolu kenn mënu ko calculer yow mbuusu jamaa rek soo ko amee sa poche rek tedd nga néegu jamaa ko ko am tedd nga ba say doom tedd ba say sëtëti sëtëy sëtër ñi tedd wax malaat nag àdduna bi yëpp nga sol ko jamaa ba mu fees benn nit moom ko ñu ne benn nit gindeeku ci sa jaar ci yow moo ëpp doole lool hmm? la an yahdi la yahdiya bika allahu rajulan xayru xayrun min ma talaat alayhi achams loolu daf for waaw te ñoom ñooñu gis nga gaay yi euh, li nga wax Ibrahima dafa daw yaram te dëgg la am na ñoo xamante ni ñoo ngi liggéey liggéey bu rëy te duñ ci boolee wax su gars yi di werante ak di di ngataka ay di lijjanti lu araam ak lu dagan ñoom ñoo ngi wër àdduna bi di yóbbu mission yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mais bërki démb euh, li mu tuubal ci euh, Tchad ak euh, Nigéria kenn xamul lu mu toll ndax nit ñi yëg nañ ko moom ci boppam nit ñi yëguñu ko Soudan la mu fa def nit ñi ndax yëg nañ ko كني يقولك سيدي بالعربي موي خليفة الشيخ بنك الجيري أجمع كلون أجمع بركي دم توبل نفكينت توبل نفكينت يبان جتاي مي مي جاي نيوغي نيوغي ليجي تدونج بولي وخ نيوغي تساري ميشن ينتي الله محمد بي تدونج بولي وخ نيوغي توبل نتني نيوغي اندوات نتني نيول بتكو نيوغي نيو اي غور لنيو نيو ay góor lañu ay góor lañu xolal ñooy songu dogon yi di songu pangol yi di songu xamb yi di song vodou yi waxuma la daaneel seen xamb yi ak seen seen seen seen seen seen jalan yi mais dañ leen di tuubal def leen ay muqaddamu tarixa bi def leen ay imaam ñuy jiite mais liggéey baa ngoog sëñ bi xam nga gars yi dañuy coow rek senegal ku jug fii di dingat fii di weddi fii di wax fii di critiquer fii mais ku ku ñemee demal def ni ñom Cheikh Ahmed Mohamed Al Hafiz mi dem fekk yéefar ya borom xërëm ya ña nga xamante duñ bëggee mu taw mu taw duñ bëggee lu xew mu xew ñu wax ak ñoom ci seen leeru xol ba ñoom ñëpp ñu mujj gëm yàlla gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa liggéey baa ngoog liggéey baa ngoog ñu bëri xamuñu ko ñu bëri xamuñu ko te te ñoom am na ci ay ponkal ñu bëri liggéey boobu la ñuy def ñun nag macha allah déggoo sànq bi ma bi ma lay waaj jox dama ne. lan moo tax lan moo tax lan moo tax ñu def direct bi te daanuñ ko def lan moo tax lu tax ñu expliquer leen papaam indil leen moom moom ci boppam te moom duggaguma sax ci ay détails li mu liggéey ak li mu réalisé ak livre yi mu defar ak taxawaay bi mu am ci biir tarixa tijaan ak respect bi mu am soo ko gisee photom dinañ leen ko publier soo ko gisee nii da nga xam nit ku baax la simaahum fi wujuhihim ku dal la ku sedd la ku dégg xadis yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam li ma bëgg a foog mooy nit day dund diineem loolu laa bëgg a wax nit ñi nit day dund lislaamam gis nga jullit yi yonent bi wax na ko képp koo xamante ni doo yittewoo lii mbiru jullit yi bokkoo ci ñoom loolu il faut ñu xam ko mm-hmm. al ihtimaamu bi bi bi umuuril muslimin kooku dafa bokk ci yi nga xamante ni day wane ni yow ci ummatu muhammad nga bokk sallallahu alayhi loolu li ma bëgg a wax mooy lépp lu xew ci àdduna bi dañ ko war a gëstu ñun jullit yi di ko seet di ko xool la xew ci ca ca ca ca ca euh, Irak mais dañ ko war a xam la xew ca Iran dañ ko war a xam la xew ca Libye dañ ko war a xam attaque yi gars yi di attaquer l'islam yi yi ñuy wax ci presse bi euh, façon yu bees yi manipulation yi mais yu yëpp ñun jullit dañ ko war a xam même bu dul yow mënoo ci dara nga yëg ko sa xol yonent bi lu ñu wax sallallahu alayhi wa sallam man raa minkum munkaran fal yuxayiru bi bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi ñun au moins nañ jël bi qalbihi yonent nee na lé képp ku gis lu bon lu ñaaw rawatina lu bokk ci xeetu lu laal xeetu ummatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. nee na soo ko mënee dindi lijjanti ko ci saa si jooni jooni soo ko mënti lijjanti nee na na nga ko jéebaane ba ñëpp dégg ko nee soo ko mënti jéebaane yow nanga ko méttitul sa biir xol bu njëkk bi borom doole yi ñoo koy def bu njëkk yi bi ci topp borom xam-xam yi ñoo koy def ba ca des nag mooy ñun ñii awaam yi mais am na ñoo xamante ni seen yoon nekkul ci li xew ci lislaam wala boo lii xew ci lislaam tamit la leen ci intéressé rek la ñuy wax lay lay intéressé seen groupe ak seen mboolook seen tariqa mais bu li li intéressé li nga xamanteni du fi yonent bi nekkon ci kaw souf dina ko lijjanti lolou sen yon nekku ci da ngay dégg ño xamanteni ay borom xam lañ ci Sénégal hmm? ay firikat lañu fait page Facebook di attaquer ba wolu ya nekk ci Sénégal di len wax lu kenn mënta dégg di len xass di len te pourtant ñi ñuy def référence ci Arabie Saoudite xol Arabie Saoudite ibrahim vous la fay fan lañ fa tëj ci borom xam-xam kenn xamul lu mu toll imaam ya fa nekkoon yëpp daan wax alquran ak sunna bu wér ñëpp tëj na leen ndax dégg nga leen kenn ci ñoom critiquer Arabie Saoudite président buur Arabie Saoudite gis nañ ko mu jox loxo jabaru euh, Donald Trump ndax dégg ngeen kenn mu critiqué ko su ko benn sëriñ defoon du am jàmm fekk euh, euh, wane nañu buuru Arabie Saoudite ak ñamu àndal ak seeni borom xam-xam yëpp ñu yor seeni jaas yi di fecc fecc saoudien loolu ndax dégg nga kenn critiqué ko kenn critiqué wu ko prince héritier bi fa nekk nii fi mu ne nii prince démb tëj na lu fukki nit ak benn ci ministre yi fa nekkoon ak fukki prince ak benn ak ak ak ñu nekk ci nguur gi ñu mu jàpp ne ñëpp dañ ko war a sonal ñëpp jël na leen def ci biir kaso bi ndax dégg nga kenn wax ci te pourtant sunu sëriñ si lu ci laal nga gis gaa yi commencé bidaa xaraam n'importe quoi dañu kii di commencé di indi ay problème yu mënta wax donc li ma bëgg a wax foofu mooy l'islam bi bu dee nga lepp lu ci euh, tak da nga ko war a lijjanti moo tax ci yu bëri léeg-léeg da lañ koy def xolal Royen Diaz yi 2012 la ci defon waxtan 2012 pourquoi parce que fu ma toll maa ngi gëstu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu jullit nek même bu dee juróomi lañ ci ben village ca àll sangam ma ngi xol ndax am nañ jàkka ndax amuñu jàkka ndax dan leen sonal wala sonal ñu leen 2012 la ci wax ba 2017 jullit yëpp soog dama exemple rek laa leen jox de pour pour wax leen mais am na ñu ma parce que man mii am na yu information yu bëri ku mel Ibrahima Diop mii moo ma koy jox ndax day lijjanti ku parce que day lijjanti yooyu man dafa am parce que affaire l'islam de leen intérêt surtout du côté intellectuel côté côté gëstu côté xam-xam côté piège yi ñuy teg pour pour xeex l'islam ça m'intéresse beaucoup te loolu fi mu ne nii je crois que jullit yëpp la war a intéressé bu dee nag ñun li ñu concerné en tant que tijane aussi c'est la même chose il faut que ñu am ouverture sëñ daara tariqa tijane ouverture am mën naa passé lii ma wax sànq première personnalité tariqa bi woo waa jël benn waaye ne ko yaay sama xalifa muy Seydi Ali Harazimi bi am na ñu wax ni ba tey ci ci baatin tey ji lépp lu cheikh di joxe moom moo koy jot li di ponkal wuli borom fatxu boroom cër bu rëy borom maqaama cheikh dicté ko jawaahirul maani mu bind ko ba mu àgg cheikh lan la du algérien la wala marocain wala ca xeetu arab la bokk hmm? Seyda Ala Ali Harazimi di ci ñoom ci ñoo bokk xeet mais lan mooy wane universalité ak ouverture tarixa tijaan mooy ab noir lañ jël téeréem تفكو تي جواهر المعاني خول لين سيو سيو بي مبوك مي لوخو ني لا اك ني جواهر المعاني موي لي رماح موي لي خول لين سيو سيو بوب مبوك يي اوفرتور مونتا باسي لولو ريفيرنس اولتيم بي گن ريج طريقه تيجان نياري اوتور نيو تي نيك بن عرب اك بن نيت كو نيول كي موي سيدي علي حرازمي موم لا شيخ ديكتي مو mu كي موي سيدي عمر الفوتي رضي الله تعالى عنهما taala anhuma loolu موي muy wane mooy il faut que boudé yow da nga bëgg dund tarixa bi comme il le faut bul yam ci fa nga dëkk mais xamal ni yàlla yaatal na mbiram la waaja la la la la la la la la la la yonent bi waxoon waaja ne ko xatal nga lu yaatu waaw am na loo xam te doo koy ñaan yàlla ñu yéene ci jullit yëpp xaj nañ ci waaye fii lii tamit kenn du ko xatal mbokk yi li ma bëgg a wax foofu mooy na ngeen di gëstu tarixa bi tey ji am na ñu bëri ci tijaan yi xamuñu woon ni Cheikh Ahmed Mouhamadul Haafis gaañu na te loolu warul jullit yu bëri yëguñu ko ñi bëgg sunna bëgg xadiis waroon nañ koo xam waroon nañu yëg loolu waroon nañ ko def seen profil waroon nañ koo wane waroon nañ ñu bind ay faatiha fukki lixlaas ak benn parce que ponkal mu rëy la ko am ay taalibe yu am fukki junni million fukki million ngi taalibe te moom amu ci benn ay taalibe la am yu am fukki million ngi taalibe kooku kilifa la sëñ bi tuubal ay junni junni junni nit jàngal ay junni junni junni nit waaye gis nga parce que duñ ko lijjanti intéresse wu ñu leen intéresse leen te loolu musiba mu rëy la ouverture dafa am solo kenn du xatal lu yàlla yaatal kenn du xatal lu yàlla yaatal nañuy ubbeeku di gëstu di di xool di suivre yëpp te maa ngi leen di wax xamal leen de ñi ma leen di tuddal ñëpp am nañu ay page Facebook kon il lu tax doo ko wër seet ko ba gis ko tijaan yi nekk ca Malaisie nga wër ba am seen page tijaan yi nekk Nigéria tijaan yi nekk ñun page yooyu yëpp ay amee sunu page lañ de Cheikh Ahmadou Abdoul Hafiz mi am na page Facebook am na ko. yooyu dañ koy gëstu waa xali xilaafa gu gu bu Maroc mais am nañ page Facebook mooy Seyd Mouhamadul Kabir lox doo ko wër ba gis ko connecté wu ca abonné wu ca di suivre activité tarixa bi fu mu dem nga xam ko lu fu ñu tuubal ay nit nga xam ko fu mu samp zaawiya nga xam ko Cheikh Zubairu bi nekk ca ca ca ca ca Maroc zaawiya Cheikh Cheikh Zubairu fa nekk Cheikh Zubairu moom waxuma la sax zaawiya Cheikh mais moom ci boppam am na page Facebook am Zubir ak Tijani Zubir Tijani mais nga wër ko ba gis ko demande ko ami ngay suivre activité yi dafa am nit mir doo ko bëggee da nga koy dund. Makkatul Mukarrama am na page lu tax doo ko wër Medina am na page lu tax doo ko wër Jérusalem am na page lu tax doo ko wër imaamu Jérusalem am na page lu tax doo ko wër bàyyil ñeneen ñi te nga topp ñooñu. sooy suivre suivre ñii nga xamante ni su ëllëgee yaay bokk ak ñoom aljanna bokkut ak ñi nga xamante ni fii ngay tàggook ñoom soo dee bëggu bëggoo sax ñu ñëw seen dëj xilaafa gi nekk ca Algérie Seydi Bara Arabi mais am nañ page Facebook mais gëstu ko am nañ site internet gëstu ko mais gëstu ko waa Nigéria yi am nañ seen Facebook page Facebook yu baax ak site internet mais gëstu ko lu tax doo ko gëstu waa Niger yi noonu waa Burkina Faso sànq laay gis seen waajtaayu gàmmu waa Burkina Faso ak waa Niger Niger Zawiya Kiyota mais Côte d'Ivoire lu tax doo leen gëstu Zawiya Sonta gëstu leen loolu yépp ay manifestation wu doole Cheikh Tidiane la li ma la wax nii ci Makka ak Medina ak Jérusalem loolu yépp manifestation doole rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla waxoon ne ko wa yansuraka allahu nasran azizan danaa la dimbali ba àdduna bi yépp xam ne dimbali naa la loolu laa bëgg moo gars yi nañ nañuy góorgóorlu di gëstu bañu bañ a cloîtré wu yooyu baaxul am na ñu bëri loolu moo tax ñu def que gars yi duñ la bëggee jëriñoo dañ lay dañ lay teg ci carcan ne bul déglu oustaz diw bul léeg-léeg sax ci Facebook dañuy jël ay dix oustaz kenn ku ci nekk ñu def ci croix mooy ñii bu leen déglu lu tax lu tax moom mu lay imposer ne ñii bu leen déglu mais déglu leen

ñun dañoo jàppoon ni suuf yi yëpp ay hérétique lañ ay bokkaalekatu yàlla lañu ndekete tasawuf ci biir l'islam la bokk ndekete du luñ du luñ créé ndekete teggin yi sëriñ sëriñ si am ak taalibe yi am ak seen sëriñ ndekete teggin la yàlla jàngal saxaaba yi ci yonent bi moom la moom la taalibe yi di jéem a dund te lépp moom ci alquran suratul xujuraat suratul ahzab mu ne ñun mosuñu xam loolu gars yi ñoo ñu yóbbaale yonent bi ñun dañoo demoon ba jàppee ko comme benn nit rek noonu benn waay bu dee jeex na mais bañ la dégloo lañ xam ne yonent bi du borom benn mbindeef ci kaw suuf léppam dañ ko war a fonk war ko xormaal war ko sopp war ko jox cër mu ne ci leen seetlu sax ndegaay bi sallallahu alayhi wa sax duñ ko wax sël sëlam sax lañuy wax sël sëlam du ñuy wax ci moom di wax comme ku ñuy wax benn Ablaye Ndiaye bu nekk na yooyu dafa am solo ouverture mooy indi loolu waxtaan déglu àdduna li ko defar yëpp mooy ouverture am am dënn bu yaatu yonent bi laata ko yàlla jox mission bi yàlla wax na ko nee na ko ne t'en fais pas demal mënal mën ngaa jëflanteeg ku nekk ah yow Muhammad yow mën ngaa jëflanteeg ku nekk waxal ak athée yi waxal ak yéefar yi waxal ak juif yi waxal ak chrétiens yi waxal ak ñëpp mu ne ko lu tax mu ne ko parce que alam nashrah laka sadraka mu ne ko ubbil naa la sa dënn gis nga yow ubbil naa la sa dënn am nga ouverture am nga capacité de réception capacité d'analyse yooyu yëpp def naa ko ci yow yi do ko amul da ngay ragal mais ku ku ku ku ñemee kañ loy ragal deglu déglu keneen lu tax lool looy ragal dama deglu ko man jabar gi du ñoom man leen deglu leen so leen paré lo leen ci xamul ngeen laaj ma ma leral leen leen budé budé lima japp non la man leen nonu la kum mënti doon même budé ku ku ko xamanteni ni man d'accord ma ak sudul non man la dedet ki day day kii rek yaramam ma rek lu ko neex lay wax rek wala dañ ko fay xaliss

lutax do geustu gëstu yi nek ci ca Lyon am na yu nek fofu ñoo xamanteni ay français lañu amnañ nañ seen site internet tijaanien lutax do ko geustu lutax do xol yenen yeneen yi nek fofu ci lion ay daayira mutahabbina fillah geustu len geustul tijaan yi nek ci Valenciennes geustu len bis dina jot nga soxla len geustul ñep geustul ñep lépp njabootu Cheikh Tidiane lañu ñep la la wax ñep kenn tarixa tijaan ki amul kenn ku génn Cheikh Tidiane amul l'islam bi amul ku génn Rasulullaay lii yooyu dëgg sëñ bi wala boog Ibrahima il faut il faut qu'on ouvert nañu mën a accepter mais gars yi dañ lay tënk di la kii di la bëgg a di la bëgg a jariñoo naan la bul dem fii ak bul dugg fii ak bul kii fii loolu waaye Cheikh Tidiane nee na al mouridu xorun le disciple le talibé l'aspirant il est libre il est libre waaye yow il est libre sëñ bi sëñ bi ko euh, ko dugg ko dugg mo dexin lolou lañ wax ibrahima yaangi ni di nek fi ci man digi mais so demé ba xam ni sëñ bi amatul lu la jox do dem sa yoon da ngay am fulu yaangi fi di jëw di jël si malay wax di la jox ngay jël mais so demé ba xam bi kat ay nabam vidd na noy def ñaar mo ci mëna am sëñ bi mëna la wax ne la sawaay yeewi la demal man lima amul yëpp jox na la ko wala boog yow nga am fulla ne ko sëñ bi maa ngi dem ni dem fulla mbiru yàlla du ay caaxaan Cheikh Abdul Karim bi mu dajeeg ba mu àndeeg Cheikh lu mu ko wax dane ko li ma amoon yëpp jox naa la li ma amoon yëpp jox naa la ko li ma xamoon yëpp jox naa la ko li ma mënoon yëpp defal naa la te boobu xam na ni Cheikh Omar màndeegul feesalagul Cheikh Omar am na lu mu gis am na lu mu bëgg am na fu mu bëgg àgg ñu ànd dox seen yi dox fu ñu doon dem ñoo ngi doon dem màkkatul mukarrama parce que amna luñu amna luy xéñ fofu moy Cheikh Tidiane mo fay xéñ Cheikh Amadou Ghali mo fay xéñ yonent bi mo fay xéñ ca yoon wa lañ wax Cheikh Omar ne ko sa serigne ba fatuna mu agalé yonam dem dajé Cheikh Amadou Ghali mu deful ko lim bëgg yëpp sol ko ba mu fess del mu xamni limu màndi gi mu màndi woon jox na ba mu sour li mu xiifoon jox na ko jox jox na ko mu naan ba màndi la mu xiifoon jox na ko mu lekk ba suur ba moom ci boppam xam na ni waxuma la suur waxuma la màndi mais su ko neexee mu nàndal ñëpp moo tax mu ne ko demal nga nekk xalifa Cheikh Tidiane ci Afrique noire yëpp Cheikh Omar ne ko ah mu ne doo demee foofu Afrique yëpp suñu ñëwee nga nàndal leen Afrique yëpp suñ ñëwee nga jox la lekk ci baatin ñëpp te noonu la demee xoolal Cheikh Omar lim may yëpp lim def yëpp lim joxe ci ijaasa lim joxe ci tur yàlla lim joxe ci ay may limu dimbali ci ay nit ba tay ji mo ngi continuer di dimbali nit ñi lu ko waral parce que dafa dajeek ko ko mën a suur bi sa soxna du toggé mu doy mu tib nga lek ba ba ba ba ba waji jeex señ bi da nga nan ko dolli waye su su su dolli bu dee am bu dee yekk lekk gi fan lay noy def so paré mburu mu fi taxaw nga dugg ko wala nga génn di jënd ji ay kebab non ngay mujjé def parce que suuru am nañu bari xam nañu seen bop ñom seen bop xam nañu ñu ah dem leen ci borom nap yu fees ya nag looluy fulla di fayda lolou ma ngi koy wax ñep daw ci gàmm ga wax na leen ko ku fi nek ñetti wër avancé woo yëgoo avancement ci yalla amul fulla dem sa yoon jeexna jeexna sa ngëm yalla sa cofeel ci yonent bi sa ragal yalla sa fonk wéyjur sa fonk jàkka sa fonk wérd sa cofeel ci yonent bi sa topp yonent bi sa roy yonent bi su yokkuwul ñetti weer ñu ànd bàyyil libéré naa la demal jeex na xanaa Ibrahima lii leer na jeex na demal parce que lii mooy mooy tarixa bi al muridu demal jàngi ko taalibe bi libre kenn du ko tënk moom yàlla rek mooy boroomam yonent bi rek mooy roy waayam jeex na <laughs> loolu gars yi gars xam nga am na ku ma ko wax ne ma yéegee leer moo tax gars yi sawaruñ sa say say say parce que lii mooy mbir mi jaaxirul maa ni laa lay yebal yebal la ci rimaax bu Cheikh Umar yooyu mooy kayit yi gën a original tarixa tijaan parce que beneen téere boo dégg moo nga tibbee ci yooyu lu leer laale leen di wax am nañu ci bëri gars yi ñoo ko créé ñoo ko xalaat ñoo ko lijjanti ñoo ko teg ay diil la dara wéru ci lislaam bi tamit am na ñu ci bëri du dëgg gars yi ñoo ko créé ay deal la léegi nag yow bu dee nit nga nag dangay xam ban heure a jot xam ban waxtoo jot nekk nit ku original nit nekk nit ku orthodoxe di dellu ci source principal ya loo fa jëlee ci ay xam-xam ak i leer nga xam ne lii ay xam-xam la ak i leer nga mën koo jëriñoo waaye yeneen yëpp ay détails la yoo xamante ni da lay bloqué donc moom bokk na ci ñi nga xamante ni sama borom junj na ci alquran ne ñoom day seen bëgg-bëgg yépp mooy dajeeg yàlla fa man kaana yarju liqa rabbihi képp koo xamante ni nam nga bëgg nga dajeeg sa borom waaye wallahi cheikh ahmad mohamad al hafiz ca ñooñu la ko yàlla boole woon ñooñu nga xamante ni dañoo bëgg dajeeg seen borom yent yàlla muhammad sunu soppe bi sallallahu alayhi wa sallam sunu soppe bi nee nañu képp koo xamante ni bëgg nga dajeeg yàlla yàlla bëgg naa dajeeg yow hmm? képp de nga wax je képp ku bëgg a dajeeg yàlla yàlla bëgg naa dajeeg yow waa léegi ci àdduna xadis boobu noo koy déggee ndax ndax bëgg bëgg bëgg jege yàlla moom mooy ngay rey sa bopp wala nga xaru fekk yàlla déedéet mooy lan nekk ci ndigalu yàlla yi ak bàkk bàyyi ay tereem koo gis sax ci ndigalu yàlla yi bàyyi ay tereem xamal ni kooku moom dee la gën a bëgg ci dund parce que xam na ni suy dee di dajeeg yàlla dégg ngeen wax je loolu la yonent nee na ku bëgg dajeeg yàlla yàlla da bëgg dajeeg yow mooy lan képp ku sax ci ndigalu yàlla yi bàyyi ay téeréem topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam roy ko gëm ko yaakaar ko def ko muy sa référence ultime ci sa dund yépp sa zahir sa baatin nga jeex ci moom tàkk sopp ko topp ko roy ko su e, so sooy dee di dajeeg sa borom fa man kaana yarju liqaa rabbihi yàlla nee na fal yaamal amalan saalihan mooy li ma wax fal yaamal nga jëf amalan saalihan jëf ju baax parce que jëf ju baax ji mooy waneen da ngaa bëgg dajeeg yàlla xanaa mosoo leen gis kuy def bak ba bak bi des un mois dootul nelaw fu mu toll moo ngay toj rek parce que xam ni la rencontre est proche le rendez-vous est très proche xam na loolu waaye képp koo xamante ni tamit sa xol ak sa xel yépp mu ngi branché wu ci yàlla nga war nga bëgg a dajeeg yàlla ëllëg macha allahu taala li ngay def mooy euh, euh, euh, li ngay def mooy jublu ci yàlla bàyyi ay tereem di góorgóorlu ci ay ndigalam hmm, di tabaarakallahu bàyyi xel sa bopp Euh, di di di di di def attention xamni ni tamit macha allah dund du dara dund du dara parce que lepp ci xottu gerte xott rek la nek waaw l'essentiel moy sax ci lu bax def lu bax baax euh, aduna bi ah man de man jàpp naa ne àdduna mënatul a neex Ibrahima. aduna mënatul a neex Ibrahima. bon yow yaa ngi nii tey jii too amoon salaire ru cinq mille euros huit mille euros sa papa dina ci lekk dërëm sa yaay dina ci lekk. dedet faatu nañu sa àdduna nu muy neexee nu muy neexee xolal ñun ñi alaaj mohammed Ndieguène ku ko ku ko ñàkk sa àdduna mën naa neexati ah loo lekk lu mu saf saf suukar lu mu xumb xumb lu mu neex neex sa xel duy dem ci moom mu saf la xene te ni ma ko waxee ci alaaj mohammed Ndieguène noonu la ko keneen di waxee ci keneen ci baayam wala yaayam wala maamam wala nijaayam budul loolu dund gi sax neexatul jaww ji neexatul climat bi neexatul nit ñi soxor nañu iñaan bari na violence bi bari na léegi nii rek maa ngi bi bi bi may génn julli saan di dem ci jardin bi pour wér de léegi laa dajeeg fii benn cas benn góor goo xamante ni am na presque quatre-vingt-dix ans ñoo ngi koy transporté di jàdd di jàddal oto bi pour rek dugg ci parking bi mais oto ya ca ginnaaw ñoo ngay klaxonné di yuuxu am benn jigéen moo nga génn di saaga

dal dem ma ko et puis yéen yéen seen bopp rek ngeen di xalat parce que vous êtes en retard mais ñi ñi feebar na tëdd seen i biir kër ta ngeen di klaxoné muy perturbé koñ bi yépp di déranger man leen soyez raisonnable et moins de violence monsieur ma ko moins de violence suukar leen aduna bi seigne bi way soxor wax lu bon metti da ngay dem ba dund gi doto ci bëgg dara njaboot rek la fi bàyyi njaboot njaboot waaye xam nga ni fee dàq fi mu ne nii gaa yu baax yaa nga fa fayee dàq de gaa yu baax yaa nga fa fii nag moom daanaka ma ngoog ay ma ngoog Ndaw rek a fi fees dell ñoo xamante ni rey mu dee reyal mu dee lañ amuñ benn njariñ waaw donc moo tax nag li fi des mooy def lu baax wax lu baax yéene lu baax di ànd ak ñu baax di góorgóorlu ci lu baax jaamu yàlla lu mu tuuti tuuti defal bëgg yonent bi surtout loolu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli ci mom lu beuri fonk ko moy rawale moy rawale moy rawale fimni ni ci jamono mais yi ñuy wax yeb du du du am abul ben njariñ maa ko wax léegi dara baxut yak nañ lépp même diine ji fooy nañ ko lépp ay polo ay tiaxan ay ken xamul tarixa yi fooy nañ ko ay tiaxan la legi nak li ci dess yow yaay xam sa bopp sen mam alaaji mohammed digen radiyallahu taala anhu ibrahim lu ñu daan wax suñu xëccu suuf ha fa nga toog bu fa jóg seen maam loolu la ñu jàngal de istiqaama la ñu jàngal suñuy xëccoo suuf fa nga toog bu fa jógee <laughs> jeex na fa nga toog bu fa jógee xanaa lu ñu jël jël fa nga toog ñu bàyyi na kook moom loolu mooy lan mooy toogal ci yàlla ak yonent jeex na détail yu bëri nga génn ci def lu baax wax lu baax yéene lu baax di ànd ak ñu baax surtout loolu àdduna amul solo waaw te àdduna bi dafay bette fitna yi bari na ñun ñii heure boo duggee ci métro bi bis bu nekk yaa ngi jàpp ne attentat dina am moo tax loo war a def ci jullee ci jaamu yàlla ak lu baax def ko xamoo ko ngay dee oto yi kenn xamul train yi kenn xamul avion yi kenn xamul bu dul loolu nit ñaa ngi ci kii soxna si lool laa ko wax ma ne ko bul wax ak kii ma ne ko la plupart ñii taxaw nii di yuuxu nii ci mbedd yi c'est des dañuy jëfandikoo lu bon ma ne ko doo waxee ñoom dañuy dañ lay jam baa ñu gaañ la yàq sa àdduna ñoom ñoom il préfère même nga gaañ la dem tëdd ci kaso ndax kaso mooy seen noppalu ma ne ko ku mel noonu da def attention ak moom ah, donc loolu mooy euh, mooy mbir mi ñoo ngi toroxluwaat ci kanam yàlla di ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni lu mu am euh, lu ñu am moo ko jox lu ñu ñàkk tamit moom la te lim ñu ñàkkal tamit moo gën ci ñun ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala sunu mbokk mi سونو صوبي بي دي شيخ احمد محمد الحافظ التجاني المصري رضي الله عنه يالا نكو يالا دوني لير يالا نكو يالا غرم سونو كي يفي يالا يالا فاي نيو بارك القران الكريم بارك مي باخ نيب ما شاء الله سو خولي شيخ محمد الحافظ بي سي تي سا سخل دي دم تي محمد الحافظ بو نيك با محمد الحافظ بي ني بري دنج كاي بي كي تي اني 70 لا ياغول يقول محمد الحافظ ب مم مو غدو موي موي بنين جينيراسيون بي محمد الحافظ ب موي بنين جينيراسيون كوكو مو داجي وون شيخنا احمد التجاني رضي الله عنه ها ها مو بيمو ديمي مكه المكرمه فلان كو وخي نكو يو يو يت سندك فيسغول دي امغا خم خم امغا ولايه سوتو يوننتغا وايه امنا لو خامتيني اماغوكو تو بوغ غوكو تو موغي باخ سي بير ñu mu ne waaw nu may def ñu ne ko demal seeti Cheikh na Ahmed Tijani mu ne kuy Cheikh na Ahmed Tijani ñu ne ko moo nga ca mu mu wër ba nag xam nga boobu Màkka bareewul nit ñi ci at gi muy wër di laajte di laajte ndax am na ñu jógee Maghrib mooy Maroc ñu ne ko waaw am na mu ne ndax am na ñu jógee Faas ñu ne ko waaw mun leen ñu ne mu laaj leen ndax xam ngeen ki ñuy wax Ahmed ak Tijani ñu ne ko kooku amul kuy yi foofu te xamu ko <laughs> amul kuy noyyi te xamu ko liir yi juddoogul sax xam nañ ko. ñi nek seen biir nday sax xam nañ ko ñëpp xam nañ ko mu leen mom la bëgg gisantel mu ànd ak ñom ba mu ñëwé am na yu histoire yu gudd la duma ci duma ci duggé day day day day day day gudd lool. waye bam dajé ak sayyidna Cheikh radiallahu anhu qu'est-ce qui s'est passé sayyidna Cheikh tarbiya ko ay at foofu lam mu waroon xam yëpp mu xamal ko ko fam mu bëggoon ag ci yàlla yëpp mu agalé ko ba nopi nak jox ko tariqati jaan jox ko iyaza nek demal nga ñibbi Mauritanie so démé nak na nga nëbb mbir mi xataa yuzhirahullah nëbb ko ba yàlla feeñal ko ba tax keroog ba mu ñëwee continuer dundam normal wootewul dara doxul ci dara deful dara lu dul rek di dund nam daan dundee euh, macha allah gis nga euh, benn waay moo ñëw rek turam sax jot naa ko keroog ndeysaan euh, moo ñëw rek sukk ci kanamam ne ko jox ma ci li nga jëlee ci sa yoon mu génn ne ah téré yaa ngi fi de njàng ma ngi fek yooyu mu ne ko déedéet amna na leneen loola ya, lu la waji jox Seyd Ahmed tijani lool la bëgg nga jox ma ci mu xam nak kon la cheikh waxon dik na du dëgg nëbb ko ba yalla feñal ko yalla moy koku motax koku dal di talal loxom mu wax ko charte yi mu nangu wax ko ngëneel mu bekk mu wax ko werdu wi mu ne ko antan na ko mu may ko werd salaat fàtte ca saa si ña toogoon ci jotaay ba dal ne ko ah, ñu ne de ñu won ne yaangi yor li ñun pour ñun charia rek ngay jàngale ñun it may ñu wérd mu may leen wérd ñooñu dem wax ko seen waa kër seeni i soxna ñoo jël wérd ñu wax ko seen doom seen i doom jël wérd nee nañ keroog laataa ñuy julli géeyee nee nañ amul benn kër bu nekk ci biir Mauritanie lu tariqa tijaan dugg na fa te Cheikh Abdoul Hafiz boobu mooy porte d'entrée de la tijania en Afrique de l'Ouest ndax moom mooy sëriñu Cheikh Mawlud Fall Mawlud Fall moo jox Abdul Karim Abdul Karim moo njëkk a jox Cheikh yeneen silsila yi ngay dégg yëpp foofu la jaar yëpp wax loolu waxtaanu boppam la ci beneen jotaay pour wax la ne la Cheikh Xaafis boobu kilifa gu mag la woon waaye dafa bokkoon jamono ak Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu yal na yàlla fayal ñu leen ñoom ñëpp macha allah gaa yaa ngoog xam naa incha allah du ñàkk Ibrahima ci yeneen jotaay yi danañ indiwaat ñeneen ci kilifa yi tarixa bi un par un ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñu barkeelu ci yow fàttaliku la macha allah donc nous avons nous allons faire un petit résumé en quelques minutes, Inch'Allah, pour euh, exprimer toute notre tristesse, mais aussi dire Inna wa inna raji'un. Euh, nous venons d'Allah et à lui nous appartenons. Nous aussi demandons à Allah de déverser sa rahma, sa miséricorde sur euh, notre maître, le fils de notre maître, le disciple de notre maître, Cheikh Ahmed ibn Shaydi Muhammad al-Hafiz ibn euh, Cheikh Ahmed Tijani parce que euh, Cheikh Mohamed Al-Hafiz fait partie de ces rares khalifs de Cheikh Tidiane euh, dont la, stature, la, haute station spirituelle n'a jamais fait l'objet d'un doute, masha'Allah. tout le monde a accepté sa station, son, sa, sa, sa, représentation de Cheikh Ahmed anhu, sa vicarité par rapport à Cheikh Ahmed anhu. Donc, euh, machallah, c'est le père de ce euh, grand maître du tasawuf, de ce grand maître du hadith, de ce grand maître du, de la connaissance divine de la ma'rifa billah, Cheikh Ahmed Mohamed al anhu, qui a rendu l'âme, mais comme la euh, l'a fait la plupart des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des grands hommes de Dieu, Cheikh Abdelhamid Kishke et beaucoup de ils sont morts sages dans la, en prosternation. Cheikh Ahmed Mohamed al fait partie de ces personnes. Et, masha'Allah, euh, euh, quand sa sœur aussi a été informée du décès de Cheikh Ahmed Mohamed al elle aussi, elle a rendu l'âme sur le champ. MashaAllah Donc la Tijaniya est profondément touchée. on vient de perdre un des piliers de la tariqa, de l'islam, de, de la sunna un, des plus grands euh, démolisseurs de la bid'a, de, de, de, l'association d'Allah, des, pangols, des khambes, des, des, des, dogons, des, des, du, du vaudou. C'est cher Ahmed Mohamed Al-Haz qui a plus de euh, des, millions de disciples partout dans le monde surtout dans le monde arabe, parce que en ayant accepté euh, la wilaya de son père et, vraiment cet héritage qu'il lui a laissé. Donc, euh, Masha'Allah, nous présentons nos condoléances à toute la umma du prophète Mohammed, mais aussi à toute, euh, à tout, à toute la tariqa tijaniya, hein, de l'Algérie jusqu'au Maroc, du Sénégal jusqu'au Nigeria et partout dans le monde. Nous, avons une pensée très forte à l'endroit des frères qui sont en Égypte, masha'Allah. L'Égypte qui est aussi un des centres névralgiques, des centres vraiment vivants de la tariqa tijaniya, grâce à, leur niveau très élevé de savoir et de spiritualité. Qu'Allah soit content d'eux et nous demandons à Allah de bénir tous les disciples de la Tariqa, mais aussi toute la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous pensons à sa famille, nous pensons à, sa famille spirituelle, la Tijania, mais aussi nous pensons à tous les Tijanes. J'ai euh, euh, euh, vraiment, on, a, on, a, on a eu à changer à, nos publics. le samedi et le dimanche étaient considérés comme des jours de repos pour nous. Hein, pour que les frères qui n'ont pas suivi les vidéos de la, de la semaine puissent les rattraper comme ils le font chaque week-end, euh, mais euh, à, règle, à situation exceptionnelle, avec règle exceptionnelle, machallah, euh, cette, ce départ, cette mort nous a tous, tous surpris, machallah, mais nous fait plaisir parce qu'il va rencontrer Allah, parce qu'il n'a vécu que dans Allah, il n'a suivi que le prophète d'Allah, il n'a aimé que le wali d'Allah, qui est Cheikh Ahmed anhu. Donc, Masha'Allah c'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de couper à toutes nos habitudes pour pouvoir maintenant communiquer avec vous, parler avec vous, de partager avec vous ses connaissances par rapport à Sidi Mohamed Al-Hafiz et son fils qui vient de rendre l'âme, Cheikh euh, Ahmed Mohamed Al-Hafiz. Inch'Allah, dans d'autres euh, conditions, Inch'Allah, dans d'autres occasions, Inch'Allah, nous allons revenir de plus largement sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hafiz en français pour que tous les frères qui nous suivent et qui ont, qui ont, qui ont euh, j'ai vu beaucoup de frères, machallah qui ne sont pas d'expression warof et qui ont suivi euh, la causerie. Même s'ils ne comprennent pas, ils comprennent par la langue du cœur, ils comprennent par euh, le cerveau du cœur et ils écoutent par les oreilles du cœur. Qu'Allah euh, soit content d'eux et les assiste, les et les bénisse par la barque du prophète Mohammed. Inch'Allah, nous allons revenir plus largement concernant, sur une causerie concernant la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmad Mohamed Al-Hafiz At-Tijani, ta'ala anhu. Qu'Allah soit content de tout le monde et nous euh, fasse miséricorde, Inch'Allah. Comme c'est une exception, nous n'allons pas encore euh, nous allons pas encore retenir les frères, Inch'Allah, parce que demain c'est lundi, euh, beaucoup vont aller à l'école, beaucoup vont travailler. Donc, Inch'Allah, c'était seulement une occasion de partager avec vous ces moments et demander à Allah d'être content de lui. Inch'Allah, demain, Inch'Allah, on va revenir plus largement sur la vie de Cheikh Ahmed Mohamed Havis, Inch'Allah, et la suite d'un programme sur le Coran et la Sunnah du prophète Mohammed. Donc je demande à tous les frères qui me suivent euh, partout dans le monde de réciter la Fatiha une fois et Salat al-Fatiha sept fois en euh, l'honneur hein, de notre maître Cheikh Ahmed Mohamed al-Habas, mais aussi pour son père et toute la communauté du prophète Mohammed. Fatiha une fois, Salat al-Fatihi sept fois, Hadiyat al-Rasulillah. وشيخ تيجان وشيخ الشيخ محمد الحافظ ولابنه الخليفة الراحل المرحوم الولي العارف بالله السالك المسلك الصوفي المتصوف آه، الشيخ محمد رضي الله عنه بسم الله بسم الله بسم الله حاج نيوغو حاج نيوغو حاج نيوغو D'accord. Donc, on fait la, la prière en attendant. va, va rentrer, va essayer de rentrer encore. Ah. kiwul de. bon mu mais. incha comme suba dinañ dinañ defaat. Mhm. incha allah bëgg participer ñep inshallah demain on va on va on va faire une euh, page spéciale sur lui inshallah qu'Allah nous aide nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh